marché ñoo lànk dañoo am dañoo am ba seen biir parti la ñu def pendant manifestation bi man maa ngi woon bitim réew mais c'est sama directeur exécutif ak délégation bu mat sëkk ak sama compagnie am nañu sax compagnie yoo xam ne jóge nañu Bakel ñoo fi bokk ci marché bi jóge ci ay yeneen réunion bu dix décembre bi itam maa ngi woon waaye bokk nañu loolu moom bu amee moom dañuy bokk benn ci euh, ñun taxaw te euh, ñaareel ba itam ci organisation bi am na wàll boo xam ne dañ koy def jëf ko nag ci biir congrès de la renaissance démocratique ak ci biir ndax dañuy ànd ak ci biir euh, parti ACT ñun nag am loo xam ne sax nañ ko wax mooy dañuy toog itam ma waxtaan ak ñoom leen di xelal ndax ñun li ñu jàpp mooy rek toog ci ñaari fan organiser organiser manifestation sénégalais doxale noonu man dañu ma toog mooy sénégalais mu xam mooy xew wala mu naroog xew loo xam ne yaa ko ciy oote da koy waajal ñaareel bi itam boo ci booy jàpp bés. na nga jàpp bés bi gën a yomb ci yoon bul jàpp bés bu yomb ci yow. yow mii di organisateur. loolu am na solo te àddina ci ngoon di oote manifestation ci dëgg-dëgg bés bu xatu bésu julli la bésu jumaa la. dafa am bés yi ngeen gis mooy tane samedi dix heures mooy tane. samedi samedi ba dimanche sax. ci sa ci sama gis-gis man ci sama gis-gis man mooy tane mu am leneen itam. dañu ne waajal bi mu doon bés boo xam ne xaw na sori. ñu taxawal ko. waaye ci diggante bi ñoo dox di waxtaan ak nit ndax ñu xam ñu nga xam ne lii ñu ngi leen ci oo ñu xam ne mu doon ñu dégg ko ba mu doon loo xam ne ni ñu ko gënee yow ñii di oote noonu lañ ko noonu lañ ko gënee. c'est important yaa ngi tudd waxuñu ci ci dialogue politique bi ngeen bokk wax waxuma waaye lépp loo xam ne concertation politique la ndax bëgg ñu dialogue dialogue yi raara ñëw ci waaye am na wàll boo xam ne Sénégal saa yoo mosoon a am élection bu am maanaa ca ëllëg sa dañuy taxaw oote acteur politique yi ku nekk wax sax ñu jéem a seet faire le bilan jéem a soppi kon loolu moom nangu ko ndax boo ko nangoo itam boo ko nangoo itam dafay doon dafay nuyoo recul démocratique bi nga doon tudd sànq. nangu nañu nangu ko ñu ngi ci waaye nag ñu ngi ci itam ci kaw ñu gis ci fayda moom la ñu gisagul ndax généralement nit nitu fayda la moom la ñu gisagul ci kaw itam ñu gis ci résultat loolu am na solo ndax oote nañu dialogue national dialogue politique bu door concertation politique yi door ca mai deux mille deux mille dix ak juin ñu bungal di door waaye ba tey am na solo te loolu taxawal nañ ko démb ci seen réunion euh, kuréel euh, de la renaissance ñu xam nag juróom-ñetti waxtaan ak lu jur mu fiir ñu dund nag dañu dañu kenn du mu fayee itam ndax toog nañu euh, décembre bu jàll politique vingt et un ki koy jiite ñi ma gis ñu bokk ci jiite ko muy Famara Ibrahima Sagna moom général ñaar ci bi xam ne ci léeg-léeg dama démarré tey bi nga xam ne jàpp naa ne moom moo am solo yéen ñu ñu ci caaxaan waaye nag kii oote dialogue politique man boo bés bi ngay gis leneen moom dafa oote dialogue politique sotti ndox mu sedd ci ndox bu doon ak coow boo boo boo boo rëy a jóg ci ay. sa benn xarit day demaaru xol mu nañ ko. ndax lu mu mës a ndax jàll politique mosul ma fi am. léegi nag ñeneen ba ngeen demee rek mën a parrainage mu ci tànn. ay góorawaay ay góorawaay waaw góorawaay kon. jàpp nañu ne itam diversion am na ñu ko waxee na nga ñaaram ak jéem a indi leneen te buy jéem a indi leneen ragal naa ne itam mu war a doon jàpp na dialogue politique génnee na troisième mandat kenn waru ko bañ classe politique bi yëpp am na consensus maanaam ñëpp ànd dem mën na dem mën na mën a nekk loolu nag kenn duñu si tudd itam ndax duñu ay cuune. très bien ayca ñu ngi bëgg ji di waxtaanee li nga xam ne sur électricité bi justification bi ci état bi joxe d' accord na ci. d' accord na ci. gis nga Pape Alé amoon développement économique amoon. émergence bi ñu tudd ñoom boo xam ne mën nga te coût de facteur maanaam njëgu électricité bokk ci di yokk wax nga bañ ko wàññi. 2012 bi ñu jokk boobu kenn waxul émergence kenn waxagul émergence loolu yëpp la jot nañ wax waay waaye coût de facteur bokkoon na ci li ñu gënoon a jiital ci suñu biir gouvernement ndax ca électricité Sénégal déjà électricité Sénégal moo gënoon a bi ci Mali maa xam ne amuñu sax géej kon ñu yeloon stratégie boo xam ne dafa waroon a indi benn électricité mët bu kenn du ñàkk ñaar électricité njëg bi wàññeeku jaarale ko ci naka ci li ñuy wax mix énergétique mm-hmm. loolu nag war a nangu ne def nañ cee jëf bu bu bu loo xam ne njuumte bu jógee la ci ci Macky ndax ñun nañ ko fekk Sénégal électricité mu ngi jógee ci électricité bi gën a cher maanaam fu muur ak ak ak ak diesel oil te bon hydroélectricité dëgg la kenn kenn ñu ci jot n'importe comment mais moom moo gën waaye gaz bi gënoon électricité bu jógee ci gaz kon amoon na solo nga soppi loolu wàññi électricité bi doon jógee ci fuel oil ak diesel oil yokk électricité bi jógee ci gaz. nekk ci loolu amoon na solo itam ndax loolu kooku leeroon nañ ñëpp ñu seet Senelec naka lañ koy doxalee réformer di wàññeeku ndax. njëgu électricité bi Sénélec ñun ñu ngi koy doxalee jiital ci ay politique ak yeneen indi na di doxal loolu indi ci ay projet yu yu am maanaa waaye ñu mujjee ko bay tànn na leen des ci la waaye ba ba ba ba électricité ndax électricité bi doon jógee ci fuel oil ak diesel oil bi pétrole bi wàññeekoo ci ci ci gàttal mën nañu wax ne bi ñuy ñëw bu pétrole bi nekkoon ci ci téeméer wàññeeku na ndax 2015 wàññeeku na ba lees juróom sax 45 kon war a am système de péréquation ca booba Fonds monétaire international ñu ngi doon oote réew yi même njëgu électricité bi ndax ñu ne booster économie ndax koom bi dina dina dina mën a jóg ndax électricité moo yor koom yéegaat na dëgg la waaye tey mu ci soixante cinq juróom benn fukki juróom waaw bu bu bu bu bu fekkee ne àgg ci 2015 fi mu newoon 2012 fi mu newoon augmentation des prix man su ma ko gisee c'est pas justifié dëgg la dëgg la ñu ne waaw waaye ganaar bi itam yokk na loolu am na waaye ba tey diggante 2000 2000 2012 loolu bi nga des na 25 pour cent de marge kon nag ñu jógee ci yoon ci mauvaise anticipation maanaam xel boo xam ne bi àggut ca naka la ñuy ba mën a wàññi prix de l'électricité waaye ñoom seen xel ci naka la ñuy ba ay marché daanu ay yeneen xoolal yeneen yeneen kii bi comment ça s'appelle énergie solaire ana njëriñ ana njëriñ ci njëgu électricité stratégie bu leer daal moom dañu leer boo xam ne